mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi dellu di leen di nuyu comme ni ñu leen doon nuyoo saa su nekk ci seen euh, site officiel senego.com YouTube euh, Twitter Instagram ak suñu page Facebook tey daal nañ gan goo xam ni Sénégal yëpp xam nañ ko bitim réew euh, ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam ci tamit vision bi nga xam ni am na ko ci doxalinu réew mi moo xam si côté société dundin doomu aadama wala boog ci la politique yi yàlla may ko loolu muy Serigne. Moustapha Dramé borom yàllaay kese sëñ bi gannaaw bi ma la ziyaara ba noppi maa ngi lay nuyu di daal jàmm ci sa kër Sénégal. waaw salaamualeykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa senegal di nuyu waa adduna yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala dëkk bi réew mi ngi nekk muy senegal yàlla na yàlla suñu borom subhanahu wa taala dimbale jëlee fi mbas mi jëlee fi xol yu bon yi jëlee fi mboolem jàngoro ju fi nekk te yàlla gërëmut ko. ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, sëñ bi nuyoo yëpp ak ñaan yàlla na ko suñu borom nangu alors li ñuy njëkk a waxtaanee rek pour attaquer le sujet dañuy dugg ci benn sujet boo xamante ni yow moom moo fi toogee foog ñu laaj ko sëñ bi réew mi ak tolluwaay bi réew mi ak ñu ngi yëngoo coow li bëri na réew mi yëngu na kenn xamatul fan nga jëm tey sëñ tey yéen ngeen war a def tey yow bu ñu la xamee. parce que ku la waaw ñun moom jamono bu ne ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa waaye jullit bu nekk nag daf la war fa màggat jëmb dama gis benn mbir bu yéeme dama seeti benn waay benn wóllare doon ko jaare ji papam papa ji ko bari xaalis la woon ba ñemee ñu dugg ci benn oto papaam boo xam ne moo gën a luxe ci oto yi oto bi def que cinquante millions ñu dugg ci mooy wan oto bi valeur am mënuma oto bi man du ma ko dawal dama koy jaay ma ne ko ndax la mënuma oto bi heure mu ci duggee sama xel sama xel day dee parce que papaam bi mu faatoo ci lañ ko mujj dugal maanaam bi ko feebar daanee ci kër gi ndeke fàttu na ñu dugg ci jëm hôpital ba ñu ba ñu yëg fekk dee ci yoon bi maanaam dee googu papa ji dee nekk ci biir oto bi moo ko marqué mu ne da koy jaay parce que heure bu ñu duggee xelam daj jéeg yox la papa ji ma xalaat ne bu ñu demee nag ba nit doomu aadama boo génnee àdduna li gën a luxe boo fa deewee ñu jël loolu sànk ko ndax bañ. seen xel di daj dee. loolu mooy mandargay ku nar a texee di mooy mandargay ko alaku. Mm-hmm. doomu aadama lépp lu koy fàttali dee rek. Mm. dafa war di bàyyi xel loolu toujours ndax xel mi di dellu ci yàlla. Mm. nga dem ba jënd oto bu jar cinquante millions un jour nga xëy génn àdduna. Mm. ñu jël benn euh, oto boo xam ne dañ koy loué presque ay trente mille trente cinq ba quarante mille francs. dugal la ci. la topp. bu ñu yóbboo ci armeel yi. avant armée li morgue ba ku ñëw ni ana moor bi ñu jàng tubaab ne ana corial bi xaama koor bi koor bi koor hmm. bi ñàkk nga sa oto ñàkk nga sa jabar ñàkk nga sa doom ñàkk nga sa tur ñàkk nga sa daraja ñàkk nga sa wilayetu ñàkk sa maqama hmm. tey li topp mooy juróom sama classe gi ak ñi mel ni man ëpp politiciens yeeg ñeneen ñu mënuloo suñuy ñëw mënuñ faa taxawaay yow benn cinq minutes ci buntu jàkk ji pour ñu séddale hmm. bu ñu ñëwee lañ ko mooy denc guñ déedéet ah denc ñu war nga gis ñu jël la ya jëmale ci bit bàmmeel ñëpp di siikar laa ilaha illallah ba ñu si buntu jàkk loo bon bon bon bon bon bu keddee nga gis ko taxaw wax ci yow am mbaax donte sunna la te yow mi nga waxal fi nga tëdd avant doomu aadama yi di lay seede sa jëf ji seede na la ci kanamu malaayika yi te yëgu la ko moo tax nga gis kuy taxaw ci seede ab néew ci kanamu jàkk bay ñaq dañuy wax ko moom fan la war dëgg kenn ko war a ñaq dëgg kenn ko war a ñaq. parce que xam nañ li muy war te li ma gën a jaaxal. Hmm. doomu aadama yi ñu lay jël yëbbalu ci armeel yi. Hmm. ñu taxaw di denc téléphone sonné ci gannaaw nga dëgg kuy mënu ko xaaral ñu ngi denc may ma tuuti ñu bare. ñu jël la timpax mi pax moo xam ne yow sa tim bopp xam nga ne xajoo ci. Hmm. li gën a dee sa bakkan bii. moom la ñuy ci sa loxo ndeyjoor bi nga tëdd jël sa bakkan bi nekk ko ràjj ci ci ci ci ci suuf miir bi ndax nii nga tëddee ah. nga wetu diggante boo xam ne air la dañuy jël pax dañuy jël xeer sakk ko wala morso sëkk ko wala xob sëkk ko pour bëgg rek lépp lëndëm lépp lu kurus mm-hmm. bis bu yàlla sakk nag jamono ji doomu demee jël fukki ay fukki fukki nit di suul te amul kenn ku sa xel dellu ci yàlla gis nga ñu bëree bëri dañuy jógee ci dañuy jógee ci armeel ya dem ci auberge yi dem ci boîte yi dem ci hôtel yi di indi ay xale jigéen di sëy ak ñoom te pourtant léegi lañ jógee ci armeel yi da ngay gis benn waay bu am rendez-vous ak xale bu jigéen war a moom 5 heures 5 heures lañ a lañ war lañ war a rob ñëw bi 5 heures 30 nga am rendez-vous ak xale bu jigéen bi 5 heures 25 heures donc néew bi denc nañ ko 35 yaa ngi ci kër xale bu jigéen bi kon yow néew bi nga denc woon amul benn tawit koo fa jàngee. te boo jógee armeel lu baax nga ci war a teg. da nga ci sa borom. te est-ce que xam nga li gën a yéeme. Sénégal ngay gis benn néew bu faatu. buñ ko robee ba ñëw ñu ne nee ñu corrigé maanaam na ñu ngi ñaan ndimbal ci mbooloo mi fi teew ndax feebar dafa yàgg. te mënutoon wet ne ko nit ñi dimbalee te yàlla tax corrigé ko pour mbokk yi fi bàyyi am ñu ko mën a taxawaatee. ndax ba ci nag bu ñu rek ci sarax sax dañ ko leb. ceeb ba ak diw ba dañ ko leb. dañ ko leb. foofu nag ngay gis benn waaye bu bu yëgati génnee benn sec cinq cent mille kii cent mille kii cinquante mille kii trois cent mille loolu bu ñu ko defoon waa ji bi mu feebaree est-ce du wér mais boo dee lañ la ko doo ko defal médecin après la mort waaye réew mu toll nii dee gi bëri accident yi bëri lépp bëri kenn xelaatu dellu si yàlla suñu borom subhanahu wa taala xam nga doomu aadama yi bëri ñu ngi bokkaal si benn affaire bi mbas mi ñëwee kenn xalaatu tuub dellu ci yàlla xam nga lu ñu xalaat zel masque est-ce que xam nga loolu bokkaale la ah. Ah, nag feebar boo xam ne dama lay wax benn affaire nee nañu tilim lay bañ ak nangam ak nangam lay bañ dee leen raxas seen loxo dee leen takk seeni masque parce que virus bi day naaw ci ngelaw sëñ bi nag loolu nag mu mbokk ak pamaget képp koo xam ne yaa ngi sol mask hmm. di dal zel ah. di def distance un mètre yaakaar ne loolu moo la mën a wéral yaa ngi bokkaale. mais feebar bi loolu la laaj. dama ne la. feebar bi loolu la laaj tey oustaz ñaar ma ko yàlla ima euh, euh, Moussa Ba tey yow boo ko amoon nii yow waruma laa jege yow mën nga ko am te duma ko xam ma jege la ngay wax ak man ngelaw bi dugg ma dama koy am par feebar ak dee lu ci gën a rëy. dee. bis bu yàlla sàkk nit dee nga jël ko sànq ba mu set taxul nga dee. waaye feebar day indi dee. feebar indi dee. ah hôpital principal bi ba fa demee. waaw am na ku fa yor cancer. waaw. faju jël rendez-vous génn ñibbi am na ko fi yor cancer dee fa tey am na ko jógoon këram jël ci dem hôpital principal ak bopp bi metti ba mu demee ñu ànd rek mu faatu am na ko génn këram hôpital liggéey ba pare ñibbi këram dem ba yëg këram di médecin fanaan na feebar xëy faatu te loolu ba muy am ba tey boobu mbas amagul gis nga sel yi nii ak masque yi mbirum soyaatin la bu ñu fi indi mu dox suñu diggante ak tawit ba tax na ñun ku mbas mi ñàkk xel li muy ñàkk daj doo xalaat tuub doo xalaat woor doo xalaat bàkkaar yi nga def li ngay xalaat rek mooy xaamu di set ak masque takk ko mooy tax mucc ci mbas ah sëriñ de digle nañ nañu tuub nañ dellu ci yàlla nañu ñaan yàlla wax nañ ko xam nga benn affaire. waaw loolu mu mujj loolu mujj digle. waaw tuub dellu ci yàlla. mbas ba mu ne kët na jonn ba léegi loolu mooy topp erreur boobu lañ fekk def mooy ci jumaa yi. dañu war na daw dellu ci yàlla mooy ci jàkk ya wa anal masajida lillaahi dañ ko tëj muy jumaa yàlla ja nga xam ne moo ko moom ñëpp toog suñu kër te loolu muy première catastrophe koo xam ne ba yowmal qiyaamati góom boobu ci lislaam du wér xam lu gën a garaaw pamagat pamagat xam pamagat xam lu gën a garaaw li lay xamal ne masque yi ak sel yi bokkaale la mooy tubaab yi stratégie la bu ñu ñëw def ko ci suñu kanam ba pare mm-hmm. tëj loo ñu suñu jumaa tëj loo ñu suñuy jàkk teral la ñu suñuy njënt yi ak takk sëy yi ba noppi ñoom tëj loo ñu suñu makkatal mu karam ba noppi ñoom ubbi nañ seen téléphone bat yi ubbi nañ seen buwaar yi ak seen zuwaar yi góor ak jigéen ñu ngi jaxasoo ci nu la neexee tey Sénégal ba léegi tey ñun jullit yi boo diggee ci jàkk jàkki di julli jullit bu taxaw moroom ka ak moom dox na presque un mètre te indi suraasam noonu nañu julli bokk na ci léegi gën a am tuyaaba mooy tànk ak tànk mbagg mbagg nañu jonju wante tuyaaba li gën a bëri te loolu formation yi dinañ ko te boo dee makkatal mu kam est-ce que xam nga nekk nii mooy première formation bi gën a mag fii ci bi doomu buuru màkk doomu buuru màkk bi xam nga hmm. dafa tëj ay magam ay rakam tëj leen kaso ba noppi moom téye état téye buur téye téye kaaba ga ak amatul at yëpp wala ko ni mu amee neexu jullit ñi te moo Liverpool Manchester United Paris Saint-Germain stade bi day fees tell barki démb umra moo am makkatal mukaram nit ñi mënuñu umra ji barkaati démb Paris Saint-Germain jënd Lionel Messi doomu aadama yëpp dagg bi yee dem seetaani ko stade fees tell Lionel Messi daw dugg ci stade bi ñëpp di yóbbu ñu tëj ñu tëj ñu tëj màkk kon yow da nga bëgg wax ne foofu nit yu bon yi ñu ànd ak seytaane ñoo dugg ci loolu bu xeex diine dama la wax ne la farmason yi yàq nañ diine ji fi mu ne nii. farmason yi. Hmm. yàq nañ diine yi. ba ci fii suñu biir réew. ba ci suñu Sénégal gi ñu nekk xol yi àndatul. Hmm. koo jege boo tiitoolee mu daw la koo jege boo saqatee mu daw la ko feebar ñu ne coronavirus. mais ragal bi man mii sax damaa ragal. est-ce que xam nga waaw ñi dee ci lu dul mbas mi mu ëpp ñi dee ci mbas mi. waaye nag li dee temps yi si mbas mi. waaw lan moo tax lan moo tax léegi waxuñu oto yi ne leen garé bu kenn dal ci oto. te pourtant bi yàlla sàkk lii dee ci oto mu ëpp ñu dee ci mbas mi. waaye léegi lu tax tëjuñ jumaa yi ne buñ julli ji ci jumaa yi ndax oto danger la te oto moo gën ba mbas oto moo gën danger mbas kër boo duggee ci oto ba fa nga wàcc sa bakkan baa jox ko sam kon yow doo vacciné wu de man vacciné man heureusement hmm. man piqûre du ma dugg. du la dugg nattu boobu laa am. ndax lan yaa ko sa bopp. waaw waaw man moom fàggandiku naa ba piqûre du ma dugg. fi ma toog di wax ak yow nii tamit. boo doon piquet dugg loolu moom loolu moom loolu moom. da ngaa tul quoi. waaw lu ma liggéey ba noppi sànni ko ci géej gi jeex na takk ilaa mi di. waaye léegi yow sëñ bi bu ko ñaan ma ko yàlla boo feebaree ñu war la piquet. piquet du ma faj boo ma feebaree piquet ma faj yàlla moo may teg feebar am ñaari yéene ci feebar ba Moustapha Dramé fii ngay wéree wala fii ngay dee sabab lu gi nag maa ngi ci heure bu nekk maa ngi jàng la may jàng def la may def pour mucc fa laa mën a yem waaye piquet amul benn jëm yàlla boobu na wérloo ku gëm sa affaire la. waaye yaa ngi di woo yaa ngi takk masque mosuma am sel mosuma wax ni mosuma takk masque ci lu may dugg ci foo xam ne sama intérêt personnel fa nekk ci wàllu aada ma xam ne boo fa duggul ba ma sol masque du ma du ma du ma dugg ma sol ko dugg li gën wala gën sànniyal masque ba. yaa ngi communication état fi mu nekk nii état li ñuy communiquer mooy na nit ñi di wax ñuy takk masque tey di woo gel. waaw ñoom ñoom bu ma leen yebee ñoom yëpp yàlla. Hmm. mos nga dégg benn ministère de public wala état. bu taxaw di conseil jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla mbas mi ñëwee léegi xamul benn ñoom kenn ci ñoom bu mas a réussir discours yàlla ne tub leen dellu ci yàlla. ñoom loolu ñoom ñëpp xamul ñu wax. affaire nguur la ñuy wax ak. ne est-ce que xam nga ne responsabilité nguur moo gën a responsabilité xëy na général Tidiane ci yàlla ndax boo ne président de la République yaay président tous les yow dama wax ci diini ci wax ci lislaam wax ci lépp. Hmm. kon président bi moo njëkkoon a war na njëkk taxaw ne solution bi mooy nañ leen tub dellu ci yàlla ubbi leen jumaa yi nit ñi tuub dellu ci yàlla boole ko woor ba noppi nag ñu doog a dem seeti médecin yi lu ñuy diggal ñu respecté ko. kon yow doo dandante doo moytu doo def di distanciation sociale doo diwoo gel yow yàlla dogal na ne doo piqûre loolu yëpp doo ko def. moo lay xamal ne mbas mi yëpp fan la. Ah, mbas moo lay xamal ne mbas mi xoolal mbas mi. ay hmm. bul tax ma sànni sama masque après. xamul tax. Hmm. dem naa Dubaï. Hmm. dem naa Kuwait. dem naa fépp fu nit ñi dem. xoolal Sénégal bërëb ba dugg naa fa ba léegi maa ngi lamb lamal ci dëkk bi dara jotul ma yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba mu bind doomu adama ci asal ju dugg la ne ko yow xew bi moo lay feer bi nga xam ne moo waree Moustapha Dramé bu jotee dinaa ko feebar te kenn du ko yëg ma dee ko ni doo ko yëg daal kon man li tax li tax nangu ma fe nangu ma waxu mbas mi mooy dañoo bàyyi ba léegi benn si ñoom nit nitu aada yi soo ñu nit ñi si jaamu yàlla te ñun ñëpp ay jullit lañu Sénégal tey war nañu am ay jullit lañu waroon nañu mën a organiser benn suur boo xam ne surtout dellu ci yàlla la boo xam ne ay sol lu weex boole ko woor dem ci géej gi ñëpp toog di sikar laa ilaha illallah ñëpp di sikar laa ilaha ñii di sikar astaghfirullah ñii di sikar subhanallah walhamdulillah wala ak laa ilaha illallah ñu ngi a nga hasbunallahu wa ni'mal wakiil mais ba léegi amuñu solution boobu bàyyi yàlla gëm médecin yi te médecin yi ñoom ñëpp bis bi yàlla sàkk ñu tim doomu aadama dem ba seen xam-xam jeexi malaakumatu ñoo ci ruug yi te ñoom duñ ko yëg. kon daal su ma. fa lawlaa izaa balagati hulquum la alquran wax wa antum indahum tanzuruun. naa ay lay nga ko jàppee. wax sànq de. dama ne. Ah. mbas mi am na ci dëkk bi. Ah. gëm naa ko ah. waaye dama ne la. yàlla moo ko fi indi moo koy wéral première sécurité bi ni mën am pour mucc ci mbas mi mooy na tuub jéggalu yàlla ba noppi doo ko seeti médecin tant que amul Moustapha Dramé yàlla kese ab tuub bu nit ñi mën a teg d'accord mokk parce que jullit laa yaakaar yàlla bokk ci utuman sans salam lépp lu mën a xam nga yaakaar ne daw mooy tax nga mucc sa mën ngaa rob ba ba mooy dee li kulli shay'in ajal te kulli nafsin zaa'iqatul wa kullu man xaaliya fani kenn muccut d'accord kon foofu leer na léegi leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax muy beneen transition gannaaw bi ñu jógee ci ñi nga xam doomu aadama yi seen comportement ci jamono ni mu tëddee actuellement diine ak jamono la ñuy wax léegi nag ci jamono ji gis nañu yéen seeni moroom ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu ñaan ñii ay dañu ay ay sëriñ lañu ñii ay ustaas ak ñeneen ak ñeneen dañuy gis ñu bëri dafa am fu ñu féete ci làngum politique am na ñu ko wane am na ñu ko wanewul ñii dañoo féete nguur ñii dañu féete ci kujje gi yow nag kenn xamul foo far man xaw ma ci kujje gi nga fare xaw ma coalition nga far xaw ma ci nguur nga far. man bokk naa ci benn parti politique. ah kon da ngay yow. waaw. da ngay politique Moussa Badara. dama ne la bokk naa ci benn parti politique am naa fa carte membre. opposition te bokk naa ci responsable te bokk naa ci responsable yi tamit ne ma ban la. ban la l'islam. ah si hmm. parti bu ci la bokk. waaw ah, boobu xam nga su ma toogee fii nii nañ dellu ci yàlla rek. kon maa ngi ci maa ngi ci parti l'islam. waaye foog nga leeral ko. beneen bi nag mooy. Hmm? dama contre sëriñ wala ustaas bu contre état wala bu contre opposant man gëwuma loolu. képp koo xam ne sëriñ ga ustaas nga am nga droit par par fa la neex euh, toujours nag bàyyil xel ne l'islam gi moo fi jiitu tariqa bi l'islam gi moo fi jiitu parti politique bi nga bu aada bi nga xam il faut nga moytu ko léegi gis benn imam buy wax wala ustaas nga yëg dafa bañ état mu contre loolu ñëpp nañu opposant mais bu ñu bañante mais bañ bi mooy doxalin gi bañ bi mooy sa adversaire la politique système bi muy politiqué. ma wax la la gënalu la bëggoo ko. ma wax la benn affaire bu ndaw. waaw. imam yëpp. Hmm. ustaas yëpp xam nañ ne. yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala waxoon nañu ni. Hmm. askan wu nekk seen jikko na mel. Hmm. président de la République bu mel noonu laa leen jox. ko. Sénégal fii ngay gis. ministre yi di mooy yàlla. député yi di mooy yàlla. sëriñ si di mooy yàlla xale bu juddoogul amagul 18 ans am doom wala xam góor ci lu dul sëy Sénégal ngay gis yamba doo fi gis mbalitum yamba mukk drogue gi di lama lama ci dëkk bi doo ko gis. sàngara deux Sénégal ngay gis sàngara cent franc cinquante franc. dëkk boo xam ne quatre vingt quinze pour cent musulman ñoo fi nekk te loolu du dëgg. quatre vingt quinze quatre vingt quinze pour cent musulman. Mm-hmm. yi ni moo fi am wax la rek. quatre vingt quinze pour cent doomu aadama yu am turi musulman ñoo fi nekk. dégg nga dëkk bi mel ni ne mëntu xam yàlla na ñu président de boo xam daf ñu mënul ne. waaw foo bi de bëri na fi cagaay bi de bari na fi. barki alquranul karim tànk balaa ngay xeex état wala ngay jàppale opposition pour mu nekk président de la xeexal njëkk xeetu mbon gi dañ ci dëkk bi tànk dañu fi buñ sonn président bu ñëw gën a gis morom gi. Hmm? billaay wal kitaab te xam nga lu tax euh, ma dënkal imaam yi. ak mm. ustaas yi ñu dal. Mm. nañu dal xam ne ñoom dañoo bokk benn parti muy muy parti l'islam ba noppi. mun mm. dañoo bokk benn parti. nafiq na du am ñaari kati mbàmm. benn ngay am. ah imaam wala sëriñ mënul bokk ci ci ci parti bu mag bi parti yàlla muy l'islam ba pare nag nekk politique. parce que boo duggee ci làngu politique yi parti ba ngay dugg. ci ngay mën a contribuer pour defar ci sa réew xam nga tey képp kenn ku nekk bu la neexee. xam nga tey ku mel ne si ku ne xam na taxawaayam ci lislaam bi mm-hmm. kooku kooku ku jël ëpp ku jël maanaam position bi mu jël mm-hmm. am nga droit nekk lu la neex mm-hmm. waxuma ñooñu day gis imam laa wax wala oustaz bu tokki télé nga xam ne contre gi mu contre état parce que moom amul benn doomu adama bu muy defar ruu gi te te te y a beaucoup jeunes yoo xam ne gis nga ne ay taalibe si Moustapha Sy lañ mu daal ci defaree seen ruu gi teg leen ci xam-xam ter leen xeet yu bon yëpp ñooñu yoon la ñu am parti politique boo xam ne dañu fexe ñoom seen lislaam am fi doole sayf yu gën fi bari ak lu mu mën a dox mu gën fi bari loolu ñun d'accord dañ ko te nangu nañ ko insha allah taala waaye waxuma dama ne day gis sëriñ yoo xam ne ñaankat yàlla lañ ñuy ñaan yàlla état daanu wala ku ñaan yàlla opposition yëg wala imam boo xam ne da ngay taxaw di xeex ak état di ko contre wan ko ko yow liggéeyoo fi lu muy yées yées gis nga état liggéey mu jox benn exemple dafa am benn jigéen bu ñuy wax euh, suñu yaay madame Faye Sall daaw heure bi dama dégg ñu naan daa dof mhm. am dégg. waaw loolu dëgg amoon na wala amoon. gars yi ñoo doon fen rek. Ah. xoolal xoolal fu ñu dem di fen naan ma ma ma madame dafa feebar te pourtant mm. bi fi nekkee di dem xew mm. lu ñu waxoon dafa bëgg xew mu jékki-jékki toog këram mm. jàpp ñàmbaram kenn déggut ko ñu ne daa dof. mu génn taxaw wax ooy maanaam ña doon wax ooy ñu am personnel taxaw ne ñu ñun kat dañu kan mm. waaye ndeka daw si kat ndeka dara jotu ko mm. mais ñu teg di xalaat yeneen fen yu ñuy fenaat di ko xapaat ci kaw moom ak lu bokk ci moom ndax loolu mooy lislaam ndax loolu mooy diine te ñaata doomu adama ñoo taxaw dëggal ni manifestation daa defoon mm. te tey fen nañ tuubi wuñ ci yàlla jéggalu wuñ ko defuñ dara ñu ngi toog rek ñëpp ñu faral te dañoo war a jéggalu nag képp ku toogoon taxaw wax loolu da war a taxawal génn fenn na ma ah, man ko dëgg yàlla dama doon wax ko dara wóoruma ci ndax ab kàccoor laa rek bu dégg information continue ko ndax ñun ñëpp yàlla kàccoor leen tuddee. léegi léegi yow sëñ Moussa Badame léegi beneen bi mooy hmm. suñ ñëwee boobu hmm. ngay ñëw tamit ñu jël benn mel ni cadre Ousmane Sonko ñu am luñ ko jiiñ hmm. te kenn mënu andi preuve buy justifier ne lii lañ ko jiiñ ma dëgg ah mais preuve mais mais mais déedéet yàlla suma subhanahu wa taala ma dëkk boo xam ne bi ñu tudd yàlla li wax mooy képp koo tuumaal njaalo xanaa ko ma dëkk bi hmm. boo doon charia moo fi daw hmm. kerek bañ tuumaalee Ousmane Sonko njaalo ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa yoolu ndaw si hmm. ñi ko wax ñëpp bu doon charia la dund dañ naan leen indi leen preuve muy ñeent nit ñoo xam ne duñ bokk fu jógee ñooy àndoor dajeandoor ci biir néeg bi gis ne xawraay ku góor ki dugg ci pëye ndaw ji te bokkuñ on soxla sax ci biir néeg bi boobaa nag kat Ousmane Sonko la teg atte wala ndaw si waaye amul ku si nekk di rek da ngaa dégg information bi di ko léegi ñun nag ñun ñëpp nag ñun ñu ànd ci wax yëpp est-ce que xam nga ne bu ñu ko tuub ëllëg yomal xiyaamati mën nañoo am problème ci kanamu yàlla. ndax ñu ngi dëggal njaalo ndax ñu ngi dëggal njaalo ci lu preuve. mbaa du ñu koy wax bu dul dëgg safara lañ ñëw. bisub yàlla sàkk nga dégg ñu ne. benn politicien dafa jël centaine de milliards ko. waaw bari na fi. bis bu ne ñu tuumaale bari na fi moom. te pourtant nag média bu ubbi am na fa. waaye dalil bi maanaam preuve bi wala ne lii moo am. est-ce que gis nga ko. moo li ma naqari rek mooy ñun politiciens dañ fi nekk lekk suñu xaalis mhm. ñu nekk di leen tuumaal te Sénégal bëgg tuumaal yàlla bëgg tuumaal mhm. ëllëg yow xiyaamati ñoom politiciens yi ñu la yàlla ba noppi ñun ñu la yow politiciens yi mhm. ci lañ doon ci maanaam lañ doon tuumaal te amuñ ci preuve. mais politiciens yu bëri nag ñu leen di tuumaal dafa am. wax xam nga da ngay toog si internet dégg ko ne sëriñ si yëpp ñoo yem. te pourtant moom it ko moom xam naa day fen ndax xam na sëriñ soo xam ne ku leen tooñ ñu jox seen digg te doo ci mën dara parce que dañu yor lu wóor waaye am na ñoo xam ne xam nañ ne seriñ nag business la ñu daw ñëw ñoom it luñ ci am ñu nag foog nga xamee leen ak sëriñ ci la noonu bëgg ñun ñëpp ku nekk opposant ragal yàlla ci ne nga opposant mm-hmm. ku nekk au pouvoir ragal yàlla ci ne nga nekk pouvoir mm-hmm. président Macky Sall yàlla ko fi teg dana ko fiy jëlee neex na xat jël kenn teg fi kooku tamit ñu war a auditer mboolem ku bokkoon ci état bi ndax loolu mooy seen léegi bu ñu jógee foofu noonu ci politique yi ba tey la ñuy desandi ba xam kilifa képp ku bokk ci wàllu diine ngay doon sëriñ wala wax nga in nga nekk imaam wala nga nekk ñaankat war ngaa politique am déet yow wax nga fi nga féete benn parti nga am mooy parti lislaam subhanahu wa taala yow fa nga bokk. Mm-hmm. Euh, wax nga tamit ci ñeneen ñi jël ci ay exemple yoo xam ne ragal yàlla ci la euh, nekk léegi bu jógee ci loolu nguur gi ñu nekk actuellement ak langue politique yi coow lu bëri naa fi mu nekk nii lam bi golo lañ nekk ba gis nañu ci kujje gi am na ñuy war a def coalition pour jëm élection locale maanaam mairie yi ñu jëm tey ci wàllu xam-xam lan nga ñuy wax ci coalition boobu noonu lan nga ci xam loo xam ni mën nga ñu ko laaye biir euh, mooy dina bëri surprise surprise. dina bëri lool maire yoo xam ne à partir de le 22 janvier la. Hmm. duñ déggati maire monsieur le maire. duñ déggati monsieur le ci àdduna. am na ñuy waaj daan. am ñu daan. ñu daanu nga wax de waxuma waaja. man waaja laa la wax am na ñu daanu laa wax am na ñoo xam ne boo demee ca yàlla dogalee. Hmm. nekk luñ fa maire. ñoom seen dogal pare na. billaahi ul kitaabi. kon nañu doogagum nii rek di xaar. man nag na leer nekk ma fi di wax lu neex kenn. benn parti la am mooy lislaam yàlla laa gëm moom laa yaakaar mooy joxe alal moo joxe wér moo joxe moo joxe dee ba ma xamee lii ba mu muy dëgg ci xam gi ma ko xam moo tax faalu muy ku yàlla bind léegi fan nga teg ne am na ñoo xam ne dama ne la man xam naa ne na maire yoo xam ne ni gars yi tuur nañ leen tuur tuur tuur tuur bu yàgg billaahi wal kitaab soit lan fan loolu fan nga ko teg sëñ nekkee ministre de la lu bëri ci réew mi da koy xam mm-hmm. information yu bëri nit ñi ngëpp koo di ko dëpp nu mu leen neexee yow danga nga ko xam da nga koy xam te la nga xam ne pëgg te doo mën a wax lépp parce que yow ministre daal la République nga waroo wax waroo tontuwante mën nag may ministre de la République ci suma liggéey bi ma nekk mm-hmm. booleem gangu par exemple tey mën naa laa waxal fii koo xam ne dafay rikéetu ay sëriñ di leen jox sacrifice lu mu laaj moo xam golo la moo xam xaj moo mm. xam kaña la moo xam mbëtt la moo xam lu mën a dox mm. billaahi wal kitaabi ginnaaw ko ci alxuraan nii nii nii nii pour état bi fi nekk daanu man xam naa ko kooku lan la politicien la wala man xaw ma wala borom xaalis la xaw dafa bëgg nekk président wala dafa bëgg nekk te gis naa ci sëriñ si sax sëriñ si si si ñoom koo xam ne mm. sëriñ si sëriñ si sëriñ si ñaan ka mag am na 60 ans mostu am jabar mostu am doom mostu xam jigéen ah. xoolal billaahi da bëgg a yëngal Sénégal nag. billaahi dafa garaaw. billaahi ki gën a ay sëriñ billaahi laa wax. Hmm. ki ci gën a mag am na 60 ans. waaw mosul am jabar. mosul am jabar mosul am doom. mosul am doom mosul sëy. mosul sëy. maanaam piisoo la xamul jigéen amul doom mooy sëriñ bi ci gën a mag. te xam nga ne seekal bu ne seekal bu ne. waaw nit ku mel noonu. du mot ñett ci àdduna ba ku am 60 ans. xam hmm. jigéen ci àdduna. mostu am jigéen mostu am doom ci àdduna mostu am dara ci àdduna moom léppam liggéey la. te boo xam ne duggee fii ci village na fu nit ñoo xam ne barki alquranul karim ñoo garaaw. mais ngi tiital état ah. non man faalu ma état. wax. yàlla kese. xam nga lii mu naa ko xam noppi. waaw dama koy wax. bëri nañ ñoo dégg fii ñu naan xaw ma naka Diouf ay première euh, dagaaru nii. Diouf Sarr mel. moo yàlla jàmm. mbaa du dara wala moo koy jël. mën naa am dara. Hmm. mën naa am dara. ministre de la santé parce que doomu aadama la comme ñëpp. moom liñ koy waaye waaye li ma la mën a waxal mooy. Hmm. Hmm. li ma waxoon sànq daal ministre de la République daal. doo xam li wax lépp. mën di mën na am mën na. maanaam maanaam mënu maa wax lim daal. mooy Dakar gi moog bu fekkee daal bu fekke daal bu fekkee daal mën nga ma dimbale daal ñu génn ci question boobu ñu génn ci. li nga xam mooy. Hmm. surprise dana bëri. léegi ñan ñoo recruter Serigne yooyu. <laughs> ak Serigne fan la ñu ngi Dakaru fii. xanaa xam nga ne bëri na ñoo xam ne nii. Hmm. ñu ngi dox ci dëkk bi nii di dem conseil ministre fu ne gars yi tourné leen bu yàgg. <laughs> pare nañ ci bés dañuy jaabante dara. te hmm? seen beere seen beere gi. gars yi dañ ko rocc beere rocc foo jàll ñu yóoxoo la mu mel ni ministre ministre de l'intérieur bu Sénégal bi. ministre de l'intérieur Antoine Diome Antoine Diome noonu la yi def. Hmm. dañ koy mystique ba mu bëgg dee. moom moom Diome moom. rocc rocc beere gi la ñuy def rocc beere gi la gars yi def rocc léppam la gaay def fa mu jaar gars yi yóoxoo ko. Hmm? barke alxuraan karim lu ay nit da koy def. ay nit ñoo koy def ci dëkk bi ay nit ñooy fay nit xaalis pour ñuy def loolu. ay kàngam. yoo xam ne ñaari am. Hmm. kilifa gi tàqali yow. wala wa ilaa yow foo jaar ci Sénégal gii. ñu yóoxoo la dara. maa ko wax am nga fii ci dëkk bi. yow ministre de l'intérieur nga wax. dama ne la. yaa ngi attaqué nag bu gën la. dama la. ki nekk ca kaw. dama la. Hmm. ku doole. dama la. Hmm. man loolu su ma nee yàlla def doole. moom bu yoree centaine de milliards. yàlla doon yàlla yor na centaine de mille milliards. waaw man Moustapha Dramé li ma wax ne li mu ci mën dara lu jàpp tëj ci kaso wala leneen leneen. boobaa nag boobaa nag mu tëj mu tëj ku xam bàttin ku xam secret ku xam ay nit ñoo xam ne nii. ndombal tànkam neexul leen. kenn du man dama ko seetaan. ko wax loolu moom dama ko seetaan maanaam daal boo bëggee dégg. man sax li ma génnee saa yi. Hmm. bañu mu tëj kaso waaye xam naa ne hmm. man Saalum Saalum laa am na ñoo xam ne ni ku leen convoqué dee am na fi am na si nit ñu ko xam ne koo xam ne boo leen jox convocation yi dee na. ku leen jox convocation yi. barki Seex nag Tijaani muy sama wasila boo duggee fii Saalum xam ne mag ñoo xam ne nii képp am na man xam na dëkk boo am na dëkk ba dëkk dëkk bi nga Ndaraame Ndaraame. Ndaraame mu ngi dëkk fële mu ngi nekk fële gannaaw Birkilaan. Mm-hmm. gannaaw Birkilaan. ci biir dëkk boobu. Mm-hmm. ku sol toni toni du fa dugg. waaw ba ci xam ne dëkk boobu xoolal dëkk boobu ah. Mm-hmm. bu ñu jullee julli xeet xeet ba pare julli tabaski ñëpp dañuy for ay xeer ci jullikaay ba andi ko ci guy gi ci digg dëkk bi sànni ko fa xeer yi bu ñu xëyee fekk xeer yi di ja takk ci guy gi. moo kenn xamul ko. ku te xam nga lu gën a garaaw. benn gajj bu nekk ci pegg dëkk bi. Hmm. gajj boobu hmm. boo fa sàqee xet benn gor boo fa goree benn et hmm. bu guddee foo tëdd. rawaan yi fekk fay duma la. yow fa nga dëkk. dëkk ma fa de. am na dëkk bu tudd Dramé. man dëkkuma fa. waaye dëkk boobu ñu bëri di ma ci xam nañ ne am na. yow da nga ah, man man ah, man lu ma wuti man lépp lu may uti rek ci àll ci àdduna mu ci mu ngi ci mu ci sama famille toog waaye am na da bëgg wax ne la baatin am na ci dëkk bi y' a beaucoup de nit ñoo xam ne sax mën nañu soppeeku ci naaw am na ci dëkk bi en fait. am na xam na nit ñoo xam ne yàlla may na leen karaama gu mel ni wànq. Hmm. wànq wang wang su bëggee lekk gerte hmm. da koy xool rek lekk ci ko tooke bi. boo tojee gerte gi yàqu xam na doomu yoo xam ne dañ lay xool xool nii xool la nii xool la nii mais saa dina toogee ci sa xol dëgg yor cancer faatu léegi léegi à part te gis nga ñu mel noonu fa leen fekk ci dëkk bi ñu am dépasse duñu am dara yàlla nattu leen boo leen gis ba leen gis sa xol dalee ko yaakaare day moo tax dëkk bi ñu fi gën a bëri alal dëkk fee soo ges neen comme man ñu fi gën a ñëw bàtti ñu fi gën a tekki dara ci kër yàlla subhanahu wa taala yàlla ñi may dëgg cam kenn du gis waa léegi ci nguur gi nii loo ma ciy wax à part ministre boobu noonu nga ma wax. li muy wax daal mooy. nguur gi opposition bi ak pouvoir ñoom ñëpp nañ ànd dellu si yàlla subhanahu wa taala képp ku ñàkk sa sa maire. yàlla la ko joxoon moo ko nangu. képp koo xam ne nii fal yàlla fal na la gëm yàlla xam ne moo la ko fal doxalee gi mu jaar yoon. di ñaan yàlla nag opposition pouvoir ñëpp nañ am jàmm. li wax président Macky Sall ne ko moom mi ngi liggéey. mais amul ñu ko jàppale ci liggéey bi. ci liggéey bi amul. ci ren ci baate wala ci. lépp maanaam ci wàllu zahir li muy ji milliards yi bu génnee milliards ne dugaleen ko ci mbënd mi est-ce que mu ngi fay dugg d'abord loolu foo ñu lijjanti ko. jar naa laaj moom di laaj. que boo taxawee ne mbënd du amaat déwén jeex na fi définitivement bu amaatee kon ne am na loo génnoon waaye kañ ko joxoon est-ce que jàll na ko ci yoon lu jar lijjanti la. beneen bi billaahi wal kitaabi Sénégal yu bëri mere nañ ko aqullahi taala laay waxee yokk nañ ceeb bi. yokk leen tàngal ci suukar si lépp te moom président Macky Sall maa waxee yow mi jënd na bu yàggul fukki oto ak juróom hmm. yoo xam ne ay oto luxe la fukki oto ak juróom ñun ay borom baatin lañu hmm. ñun hmm. ay borom baatin lañu billaahi wal kitaab yi ni état occupé dëkk bi ba lépp mu xam ko xam na nag ñoo xam ne yàlla mel na leen ba yow mi jiite nguur gi loo mën a ne yàlla xamal leen ko nga la waaw bu yàggul. ay oto de luxe. oto de luxe waaw. mooy oto yi pour escorte oto yi escorte pour di génn dem. waaw waaw ah, kenn waxum na ko nag maa ko xam ci sama baatin man. yow yaa ko xam. billaahi wal am na. jënd na ko ba noppi. jënd na ko waaw na ci réew. fukki oto ak juróom yoo xam ne nii président bi jënd na ko jamono jii may wax ak yow. jox nga ñu information Seydina dégg nga information boobu noonu. Hmm. alors élection yi ñu jëm ne nga am na lu bari lu ci lalu dina am ay surprise. maire yu bëri fi mu nekk nii pare nañu dafa mel ni ki kon da nga bëgg a wax ne am na benn arme boo xam ne arme bu am doole bu jëm ci élection yi muy wàllu mystique. mystique commencé nañ xam nga sax ku ni état moom daa ko du mystique ndax yàlla bu la jox la publique jox la ministère intérieur jox la pouvoir nga yor ko. loolu mystique am yàlla may na la dañuy mystique de. waaw taxawal taxawal la taxawal la ilaha illallah taxawal la bàyyi li ngay wax sëñ bi borom yàlla ay kese. taxaw ma wax wax ma. gis nga. ñi bëggul nguur te am yaakaar ci nguur ni mu neexee leen nguur di jaral ki ko jox du ko jaral gis nga yow mi timbal ca di lekk booy suuree caf gi du la caf gi doo ko xamati ñoom li ñu mën a fay waaye gis nga ko toog fay xiif ndékki ut bu ci bi xañee mun na ayib musu ca tool ko jaral lu ne la ko jaral waaw li ma la mën a wax daal mooy du opposition du pouvoir hmm. ñoom ñëpp nañu gëm yàlla dellu ci yàlla. mais ñu ngi safal quoi. te xam ne àdduna day jeex. mais ñu ngi safal daal. si c'est trop mystique. parce que jeunes yi jeunes yi. Hmm. nañu nañu jóg seen bopp. Hmm. doomu aadama bu nekk war ngaa fexe am tulu fetal tulu fetal fetal. tulu fetal ak tulu jaasi ak tulu paaka. ndax la mboolem jeune boo xam ne amoo ko na nga may su bopp fii ba élection demee woon kaddi. genre Seydina yi man de du ma tul man man de tul ma. Ah, waaw man nga ko tul. nga war a da nga war a ut tul waaw. moo utul su ma feebaree kon du ma vacciné da nga da war a paxe da war a pare. mais man dama war a di vacciné wu dama war a jël perfusion. xam nga corona xam nga coronavirus bi ni ñu ko sànnee ci àdduna bi kenn ku nekk di ko nooy. di feebar di tëdd. noonu la mystique mel am na ñoo xamante ni noonu mel jël benn mbir rek sànni ku nooy nooy ko ku nooy nooy ko ku nooy nooy ko ku ko. après après yow ñoo nga def ba mystique bi jàpp la. naa euh, nga defal ma tul. tul léegi euh, am na ñaar yu dese tey jamono yëngu na. ñu gis ne Sénégal li ci li fa li fiy xew daaw fi xew jigéen ñi boo déggee jigéen bi yóbbu na nit police tax la da ko doon sàkku da ko am koo xam dafa doon nekkaaleeg diw porte plainte ku góor kooku ne dafa doon génn ak ñeneen ah, di ma fen ñu gis ko fi xale yi jigéen yu bari léegi yàqu du ñu am sax vingt ans moom daal jéggi na dayoo. lu ko jiitu dama gis benn village boo xam ne. Macky Sall la ko wax mu dégg président yaa ngi ci politique yi ba tey. politique yi. Mhm. loolu daf la rëccoon quoi. daf ma rëccoon mooy. Mhm. dama gis benn village boo xam ne. waaw. na leen président Macky Sall tax. benn rawatina Marème Faye Sall na mhm. mer lool ba mere état. dama fa dem barki démb. bi ma demee foofu. imam ba xamal ma ne ma. waxtu julli juróom bu ñu julli ñu ngi ne yàlla Macky Sall état bi nguuram gii daanu. billaahi wal kitaab saa yu ñu julli. waxtu julli juróom bu ñu julli. Hmm? ñu ngi joxe ñaan tabat yaddaa ca jàkk ja. tabat yaddaa mel tabat yaddaa mel. ak lim bañ ko joxe pour état bi daanu parce que tax mooy dañoo mere état. Hmm. ñoom du ñu ay politiciens. Hmm. du ñu dara ay baykat lañ. seen dëkk ba amul courant. amul ndox amul raaraan. waxuma ne. dafa amul courant laa wax dëkk bu lëndëm kurus la. amul rang-rang. rang amul ko laa wax. waxuñu sax tali waaye rang-rang sax amul. rang-rang mm. ñaari ba dama ne la. Mm. ñoom ca dëkk ba. Mm. seen ndox ma ndox ma laa ndox ma. buñ ko bëggee moo taw bu mu réew. état mosul leen di jëriñ dara dara dara ci àdduna lu politicien mosal ci dëkk ba amul. ay ñuy tabati yàlla ñuy ñaan yàlla. nguur gi fi nekk wàcc keneen ñëw bàyyi leen xel. leen dimbale ji. te xamuñu politique. te jigéen ñi ne nañ ma boo demee waxal ñu Marème Faye Sall ne ko nañu dimbale ñuy bay nawet ak noor. Marème moom dina ci jóg moom lii wax ni tabat yada yooyu. dana dakk la wax. rawal ay jigéen leen ñoo na man nii waxee ko yëbbal yëbbante àq la mën ma ko ñàkk wax. lii kay dana ci jóg na leen dimbale nee nañ ñuy bay noor. ak nawet. est-ce que xam nga ne Sénégal ma nga biir palais ma nga Mermoz. ngay gis jigéen ju ëmb ba noppi. Mm-hmm. sëgg di bay. Hmm? buñ bayut ñoom seen jëkkër yëpp duñ xam luñ dundee. duñ lekk. Mm-hmm. te loolu moom jigéen ji mën na leen ci dimbale. dëgg la la ñëw ci question mooy li ma la doon wax jamono ji ñu toll nii actuellement Sénégal moom daa yëngu Sénégal nee nañ yàqu na Sénégal lan nit ñi doon dundee dafa soppeeku nee nañ sax léegi dañu àbb dund bitim réew. bitim réew nag waxuñu dëkk tubaab yi rek waaye dëkku Afrique bi am na ñuy dundee moom lu yàlla xam doy jigéen boo xam day porté plainte góor jigéen buy tëdd góor di fanaanoo ak moom nekk ak moom nekkaale mel ni ay jëkkër ak jabar bay dem tuumalante day doxaan ñeneen di ma fen jigéen ñi léegi mooy lool dëkk bi toj na xale yu góor yi tamit mooy lool jaaloo bi bi bëri xale yu jigéen yi xale yu góor yi ñoo yem. ñëpp a dëkk bi mm-hmm. bu ñu wax xale jigéen yi kese de. xale jigéen ñi luy appartement kilim mhm. séer ko def fa salaam bu baax buñ gisul góor gu bon mënuñu koo am kon góor ñi gën a bon jigéen ñi fa lépp lu jigéen def ba dem tribunal gën ñu àtte yaa góor a ko bokk def mais jigéen ñooy iri xale yu góor yi tamit xale ana góor ñu ko iree iri ah déglu ma wax la xam nga iri de doo comprendre luy iri déglu ma wax la mhm. iri rombal xale bu góor ci mbedd mi nga jox ko cent mille francs na ko safaraa ngi nii kaay dugal sa loxo du dugal loxoom de kon nu la jigéen de irée di yibul si ne di tëddee yow yaa yor sax bon dajeeg jigéen mu xam ne ku bon nga tekki ko dara sa alal ji bëgg ci moom it mu nax la ne la léegi nag kaay ñu ànd maa ak yow dem sama appartement li si pos nga ko ngeen am dem mbon gi xale yi jigéen ñi nekkee ci dëkk bi yëpp góor ñi la dañoo xam ne góor ñi amatuñ benn personnalité rawatina borom doole yi borom doole ay politiciens politiciens yi nga gis nii. Hmm. politiciens yi nga gis nii. Hmm. ñoo fi gën a ñoom li ñu mën ci jigéen yow mënoo xam nga yow pa magat man yow pa magat yow. mënoo am salaire cent cinquante mille francs bëgg cee doxal bëgg cee fay courant fay ndox sa jabar sa doom mënu ne. xale jigéen yi ci dëkk bi yëpp yow oto yor rafet yëpp. Hmm. saay saay yi sàcc alalu dëkk bi di leen ko jox ñoom lañ. di leen degal bi ab avion ñu dem Dubaï. ñii fu ne. dëkk bi. mais mais mais Moussa loolu lan xale yu jigéen defuñ dara mën daal seytaane leen topp wala seen mbonu bopp la wala lan la. góor ñi ñoo mbon se góor ñi ñoon ñoom ñoon na ma taxaat yi. na ma taxaat yi maanaam ñoom ñoon na ma dem safar rek góor moo tax lu ñu xam jël ko jox ko jigéen te lu ci gën métti nag képp koo ci gis mu jël cinq francs di jigéen boo demee laajte am na mbokk boo xam ne mu ngi hôpital soxla ordonnance vingt cinq francs wala nekk kër ga sonn tamit. jël naa seen mbokk yi ndax duñ dimbali seen mbokk yi ndax ñoom sax seen mbokk yi du ñu jot ba mu jëlee gis waaye ku ci yot milliard wala ndombal tànk ut policier wala gendarme teg sa buntu kër da ngaa deegut boo deewee say mbokk ñooy lambar lambari ñoo jël la sang la sang la jullee la dugal ci pax mi jo takk nag sa alal ji fi bàyyi comme da comme maanaam da maanaam dafa xaraamoon ñu jël ko ñoom it naanee ko sàngara joxe ko yàmba may ko xale jigéen ñi daan may rek continuer ñu may di dem <laughs> alal ji boo ko fi bàyyee ñun. nañ jël seen alal ji investir ko ci village investir ko ci jeunes mais dégg say conte banque centaine de millions nga denc fa ba un milliard milliard sax laa xamul ak gor lu mu koy maanaam gor ku ne ma de yàlla mu war la xisaab ba nga juddoo sa ndey ba keroog ba nga dee dërëm bu mos am foo ko jëlee ak ci ko dépassé kon Macky Sall def Karim Wade képp kuy xalaat lii boo xamee jom doo denc milliard ci sa compte banque. war nga kaa mën a séddoo nit ñi ci jooju lañ toll. amuñu jom. ñoom ñan. ñoom ñu yor ñoom ñuy sàcc alalu réew mi rek. moom mën na nekk mën na nekk ministère public mën na nekk mën na nekk député na nekk mën na nekk keneen keneen. alors tey bu ñu gisee coow loolu noonu yëpp mais oustaz yaa ngi ci li nga waxoon ba tey ci wàllu musique bi wax nañ ci naankatu sàngara yeeg tuxkat yi tamit naankatu sàng tuxkatu yàmbaa yi ñoom atteb ñiy def musique wala kuy dem ca mat na nga ñoo yem. ma wax la benn affaire. waaw yàlla la yàlla musal ci nga gis tuxkat bu dee. tuxkat bu dee. tuxkat bu dee. toxkat bu génnee àdduna mm. xam nga ñun ay imam lañu dañuy jëlee néew hôpital principal mm. yóbbu ko ci village yi mm. di ko sang wala ci yeneen dëkk yi wala ci yeneen gox yi nekk fii ci biir Dakar dañ koy def gis nga bu dee toxkat nga boo faatoo nii billaahi wal kitaab balaa ñu lay sang ni ngay sonalee nit ñi toxkat bu ko xamul ni nga bàyyi tox Euh, xam nga li ngay manqué yëpp naa déggul bu bu baax de loolu c'est intéressant xam nga li ngay manqué yëpp. lu ñuul la loo xam ne ni tookeel la nekk ndox si dere ji boo faatoo automatiquement comme sa dara circulé mm. loolu da gis day bale di génn te buy génn si ñaar lay géwal ñett lay génnee sa bakkan bi sa gémmiñ gi ak sa xawra bi lay génnee moo tax tuxkat bu faatoo bala ñu koy denc dañ koy may parce que 24 heures da ko mën a denc. pour mu génne lépp ndax. <laughs> loolu du dem yàlla. Hmm. yàlla yàlla yàlla du wor. na nga ñëwee ngay delloo. waaw hmm. ah, set da nga set wecc. nga gis nag. malaan gañ la njëkk a laxas day yàqu ñu changé ko. laxas mu yàqu ñu changé. Hmm. ba dañu malaan nga mooy doo ko baax. au temps boobu yëpp nga jël ko ci nit ñi. yow yaa ngi dee sax amee nañu àq. ndax cigarette bu dee sàngara nag moom. képp ku naan sàngara si ñuy jaay fii mm. doo ko naan ëllëg ajana bàyyi leen sàngara mm. te doomu aadama boole ñett yi tux yàmba mm. tux cigarette tux yàmba naan sàngara dugg ajana mëntu ne ñett yi kenn du boole te fa fekk tuxkat tuxkat cigarette dana si boole yàmba bu yàggee boole ci sàngara boole ci jigéen ñeent yëpp nga boole ko dee bëgg yow nga bëgg a dee daje yàlla yow mu dugal la ajana yow loolu fu mën a nekkee xel nangut ko en fait xel nangut ko policiers yi rek policiers yi nii rek isaay policiers yi képp bu la jàppoon tey nga luus wala ñu dee yow nga luus ñu enquête la la wax du leen doy il faut ñu yëbbu la biir gàtt ba identifier ba mu leer nañ ñu doog lay bàyyi nga ñibbi. waxtuma laa fële. waxuma laa nag fay ci barsàq. di nga set wecc nga nekkoon ministre de la République wala nga nekkoon maire wala député nga yàgg ne di nga dugg àjjana ci ay maare faram mais ay tappale la. procureur bu jot PV PV bu set wecc lay jot boo ñëwee du la yokkal virgule ci li nga wax da koo jël teg ko na la ndax ndax ndax yaa wax lii nga ne waaw yaa judd le premier janvier 1980 waaw diw mos bàyyi diw mos yaay waaw yow de nee nañ enquêteurs yi yaa def nangam ak nangam ndax yaa ko def loolu muy munkar ak nakiir boo dee ñu laaj la ne la yaay tudd Pape Maguette 1980 premier janvier diw mos bàyyi diw mos yaay léegi nag tey yaa ngi nii dañ leen audit su ma soxlaa moo ñu yónni moom a procureur général bi léegi nag PV dafa war dem ci moom ñu jël ko buugale ko xaar bar sàq xaar bisu maanaam xaar bisu dekk bi léegi mooy yow bañ la bindee nga judd premier janvier ba tey ji fi nga taxaw ñu lay jugé en attendant yow loo fi amoon ci alal nga wax lépp ku gênante bi nga wax ñoo daa nga pour yamba nag waaw dorog nag waaw danaa ko laal kay sàngara nag waaw danaa ko laal kay yow xam nga enquêteur su enquêté ba noppi day def aviam ci enquête bi ah, aviam aviam mooy wax ne ah man kat kii mooy PV bi rek non maanaam bu PV bi su passé ci pare moom ah. enquêteur bi day bind ci suuf décision hmm. moom lan la gisee affaire bi quoi moom lan la ko gisee dañ defee defeere wala dañ <laughs> maa non non maanaam day procureur bi ne ah vraiment kii daal man gis naa li ñu ko toppee hmm. moo ko def wala mun ah innocent la ci daal vraiment kii enquête naa ko mais innocent la ci mbir mi day përga bu riidee ma loolu mooy waral nit di am liberté provisoire parce que xam nañ ne li ngay def vraiment njumte la waaye nga nga dund quatre-vingts ans cinquante ans trente ans lépp ci njumte mën nekk ku def fii ci procureur bi trente ans yi jaaykatu yamba wala jaaykatu drogue bu la procureur jàppee doo rëcc ci àdduna kon nag yéen ñëpp bu leen mun kër ak nag ki jàppee du ngeen rëcc te góor ñi takk seen tubéy tey kon te góor yi takk seen tubéy waaw comme dëgg bàyyi njaalu gi ñu nekk ci dëkk bi bàyyi njaalu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax comme naa ne jëlënni lu bëri mënoon nañ waxtaan fii ba suba bu jeex mhm. parce que yenn saa yi sax ngay wax ma bàyyi la nga développé mhm. dafay am ñeneen yoo xam ne bëgg ci bëgg dugal mais mhm. dangay dem moom yàgg loolu yëpp dafay maasale lu ñu bëggoon wax yëpp foog naa ne euh, njàngale bi mat na diine gi ñu méngale ko jamono loolu yëpp mat na am na lu ñu ci jàngat lu bare bare joxe nga conseil joxe nga xam-xam joxe nga loo xam ne nit ñi ñu ngi koy séentu am na loo leen leeral ak i tamit lu ñu mujjee mooy yee nit ñi ci jëf ju bon muy dox beeg sàngara beeg yàmbaa lépp ak àtteb suñu boroom loolu moom lu leer nañ la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sëriñ ñu ngi gërëm bi waa Sénégal yéen waa Sénégal hmm. ñaan liggéey bi yàlla gën a yaatu ñu ñaan yàlla nag mbooleem politiciens yu jëm ci élection yi ñoom ñëpp yenn yàlla dafa leen jàmm nañu bàyyi xel ne jarul xuloo jarul xeex jarul muy ñaaw lépp na rafet na élection yi ab digg la boo xam ne day jàll buñ ci waxante lu ñaaw buñ ci defante te buñ ci ngañante te buñ ci xaabaante sutura ndax lépp àdduna jarul ñaaw ñaan yàlla nag yéen yàlla raxas xol yi jërë ngeen jëf jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax Serigne Moustapha Dramé borom yàlla ay kese ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax yàlla na ko yàlla yàggal fii mu ànd ak wér gu yaram euh, Seydina yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi yéen it jaa ngeen jëf